lay topp booba legui mom ma nga ca moo nga gis Ousmane Sonko daal di génne communiqué am pour sétal daram donc euh, pour ci loolu aussi seen i il faut que ñu xam benn mbir parce que euh, il faut que ñu wax ko parce que sank yaa doon wax ci Khalifa ak euh, Karim Wade ah, bo xamantene ne tey ah, tey keneen ki bokk na par le biais de la commande des dialogue Khalifa kenen ki malgré qu'il a dialogué mais euh, boo ba léegi bokkul mënul Karim Wade mën la ne sax mo ñu yobé ci li parce que c'est ça il faut dire les points sur il faut mettre les points sur les i Khalif, euh, Karim Wade bok na ci lu Sénégal ci li ci bu ñuy dund ci euh, Karim parce que mom mo dem instruire l'Assemblée nationale en le disant que il a des preuves ni que amna ay yi euh, assemblée nationale juge nécessaire d'être une commission d'enquête peut-être d'une une commission d'enquête pour adresse hein, le chamboulement donc euh, de ces élections de 2024 ba le président guinée dans la foulée un décret pour les élections élection donc euh, dinañ ko ci suuf ba jimi jamono hein, donc assemblée nationale s'étale donc

Nous koy xaar pour mu andi ay preuve comme loolu wax il faut que mu andi ay preuve ci assemblée nationale bobu euh, pour ñu xam fu fan la deug bi réellement

Euh, ar suñu élection yi et aussi ah, donc euh, ñeneen ñi ci société civile bi ah, ñom dinañu daal dem ba weddi kàddu yi euh, Alioune Tine ñoom dañuy né Alioune Tine moom consulté wul kenn ba muy dem feulé ci donc gisante ak président de la république moy manam pour mën calé rendez-vous bobu boy ba ñi ñu bëri japp ni que ça dañuy nekk ci comme médiation pour Ousmane Sonko mën a génn ci kasso bi ñu bëri comme ça dañuy né Alioune Tine euh, daf leen consulter au dernier moment pour ne leen bëgg-bëgg moom Alioune moy ñooñu daal di ñëw jàppale ko ci combat bi moy maanaam euh, ñu dem donc euh, rencontrer le président de la République mën a wax ak moom hein, pour ne serait-ce que apaiser la politique le climat politique au Sénégal mais ñooñu loolu la ñu ne ne que ñoom Aliou Tine bu Nako loolu na ko dem defi moom defi kese parce que ñoom duñ ko topp ci loolu Bala loolu balaa muy dem kale euh, rendez-vous boobu dafu leen waroon consulter ñoom muy maanaam euh, accueillir seen avis ça soit

les détenus politiques et aussi Ousmane Sonko donc bon xoolee loolu yëpp hein, Aliou Tine dafay daal di wéeti ci combat am hein, moo tax nga gisee ay yéenekaay yu bëri ñëw euh, tey di ko euh, ni ko Aliou ci désormais Même les ku wéeti ci euh, comment dirais-je yoon yon mu jël mooy yoon médiation mais mom, ñu bëri sax ñuy jàpp ni que nekkul ci que kese ak Pierre Atepa Goudjabi, mais Atepa booba léegi dégguñu ko muy wax moom Pierre Atepa Goudjabi, mais ñu bëri soxla ñu dégg am ci mbir momu Atepa Goudiaby bi am nañu si ko doon ray mais Elba euh, di naan Atepa euh, xam moom amoon na ay tiraillement avec le président de la République. boobu taxé ko <laughs> d'escroquerie hein, d'escroc hein. ñu bari japp ni que peut-être juboo nañ ci diggante bi ba Atepa di dox une quelconque médiation. kan la ñu juboo juboo am na Alpha juboo am na sûrement. nga digganteeg Pierre Goudiaby Atepa ki nga xam que modi euh, justement le président Sall alors mais enfin nous aussi Sonko nous nga exilé au Maroc euh, d'après les explications yi nga peut-être que Marissa Sagna joxe woon na euh, Ousmane Sonko a refusé Limborkani, que moi Ousmane Sonko justement le professeur euh, je ne ferai jamais exactement mais tout d'abord suis au Maroc bi Arfa ak exil Ousmane Sonko le pourquoi pourquoi nga jàpp ni Ousmane Sonko a li nga xam que l'exil. il y avait jurisprudence qui était là la jurisprudence Karim Wade lii mooy wane encore une fois Karim Wade warul victimiser wu sëñ parce que gis nañu ay nit ay député mi taxaw assemblée nationale di Oui woy Karim Wade doomu Abdoulaye doomu Sénégal ñu exilé ko par force Li moy wane que encore ni Karim encore il faut ngeen ni yow gis nga buñ la tëjee nguur buñu gissé gisee ni que yow yow da len sonal ci sen sen liggéey Dañ lay proposer un exil Karim a accepté l'exil. donc proposition alors nekkul loo xam ne forcing. encore une fois faut ñu nous ko l'économie. ñi proposition exil proposition d'exil. exil nekkul lu ñuy forcer nit. Hmm. nekkul lu ñuy forcer un détenu Moi Madame dañ lay proposer soit ci accepte l'exil, nous ñu exilé la nga nekk ci jàmm mooy maanaam doo nekk ci mais da ngay quelque part dans un pays donné nga vaquer à tes occupations nga mën a dox say soxla mais vous faites so euh, euh, accepter accepter exil bi. nga ne mm. da Sénégal. vous mm. ngay continuer di proposition là Karim a Karim a accepté la facilité mooy la facilité moyen d'être exilé à Doha au Qatar pour il mën a ci parce que ñemewul pas Karim ñemewul kaso en fait. ak moment bu muy wax ni que woy son cher Sénégal de cœur son cher Sénégal de cœur yow ñu emprisonné la fi a il a eh, <laughs> Karim a choisi la facilité moi je daw je me suis loolu la a encore Ousmane Sonko Ousmane Sonko a refusé d'être exilé c'est ça un patriote man waxuma ni que parce que je suis patriote man suis ci patriote je suis ci mais je suis journaliste. je suis un journaliste je suis analyser. Je à dire Je analyser. non Ousmane Sonko exactement. Ousmane euh, Sonko Je parce que euh, euh, il est critique.

il a le droit de rejeter cette clause-là. Mm. Maintenant, Koulabé exiler de force, voilà, Koulabé proposer l'exil. Mais tu as le droit de refuser quand même. Tu as le droit de dire que moi, je refuse l'exil. C'est une proposition quand même, c'est une valeur. Ce n'est pas, pas de force. toute manière, même si vous faites que beaucoup de psychologie, qui médiation, mais il a le droit de refuser. Il a le droit de dire que moi, je ne vais pas, je ne vais pas accepter euh, cet exil. Donc, euh, euh, comme Karim l'a fait, moi je choisis euh, de rester en prison, je choisis de, mener mon combat politique, même en étant en prison. man que aussi ils ont choisi de combattre de combattre ce régime donc par la radicalisation donc de leur euh, opposition Hein, ba tey ñu waral li euh, jël leen dugal leen ci bi peut dire man man gënuma ñooñu man gën gënuma ñooñu hein, euh, pourquoi man je vais accepter l'exil alors que ñom Bassirou diomay fay ñu ngi ci kaso bi ñoom Falilou Keita ñu ngi ci kaso bi ñom animal animal animal jim ñu ngi ci kaso bi ainsi que ainsi de suite pourquoi Ousmane Sonko aurait accepté l'exil et ñu bay ñooñu ci kaso bi donc dans ce cas du nek gor gor mais yow <laughs> même que ça soit l'ampleur du moment mais tu vas choisir de rester en prison mais ne serait-ce que euh, pour euh, honorer pour honorer pour honorer non seulement ta parole mais aussi honorer ñoo xamante ñom ñoo faré ci yow ñom ñoo la jox bop ñom ñoo jaral na le lu nek pour yow ko nga nek ci jamm yow Ousmane Sonko hmm. donc euh, yow tu n'as pas droit à l'erreur à accepter l'exil mais lola laa Sonko il est dans son principe il est dans son combat le fait de rester constant et ne pas choisir la facilité qui est l'exil mais donc si Karim a choisi <laughs> euh, auparavant donc euh, euh, d'être exilé c'est son choix c'est son choix c'est pas dire que Ousmane Sonko Karim l'a accepté Ousmane Sonko va l'accepter forcément non Ousmane Sonko et Karim musuñu bokk gis musuñu bokk gis existe. il faut que nous xam Moi, moo Ousmane Sonko il a bien fait de ne pas accepter l'exil oui mais c'est ça. alors mais euh, euh exil woon ñu Japonais, c'était sa mot politique. mais mais c'est ça la réalité parce que euh, le cas de euh, Karim Wade. mais Karim Wade non Karim il est mort <laughs> politiquement. Karim euh, Karim ne sera non non non bi Karim il ne sera jamais président de la République au Sénégal man maa ko billahi wa kitabihi. Nama yalla Karim du nekk président au Sénégal tu sais pourquoi. il a trahi le concept. Karim a trahi le concept. Mais Karim a trahi le concept. Karim euh, c'est-à-dire que nous avons doon un nous le tu sais mm, pourquoi mm, sëñ mm, son papa a été emprisonné combien de fois au Sénégal. est-ce qu'il a choisi l'exil. il a enlevé. est-ce que Abdoulaye qui a fait 26 ans dans l'opposition ñu emprisonné mais Abdoulaye est-ce qu'une fois mës a choisi le biais de l'exil mais pourquoi Karim l'a choisi te ñoom ñu mais euh, tamit. non euh, non a pas de tamit euh, C'est ignoré les protocoles justement c'est exil. mais les protocoles c'est simple C'est Karim une proposition comme lu ñuy def Ousmane Sonko Il mu accepté il y' a pas de principe Ça dit dire que il faut pas ñi ni que Karim dañ ko fitnal wala Karim dañ ko exiler de force parce que dégg naa du yow ah dégg naa ay député ñu melni ni Waré euh, euh, sar sama hmm. maire jooju ñoo dëkk Guédiawaye djé euh, ñu melni ay député yu bëri yu Karim yu faré ci la coalition donc. ñom Cheikh Yérim Seck voilà ñoom Cheikh Yérim Seck ay ah, journaliste sax yu yu ko bëggoon défendre dina wéy Karim a comment dire est victime Karim a été victime d'un exil Karim n'a pas été victime d'un exil Karim kenn mësu ko forcer exil. C'est il faut que nous hanté deug Karim, ci la Karim ken musu ko exilé par force. Karim dañ ko proposer comme lu ñu proposer Ousmane Sonko. Hmm. mais Karim mom <laughs> accepté ce accepté a c'est ce que moi j'appelle la facilité. Karim a accepté la facilité d'être exilé à Doha comme ça mu la nek d'être ci à mu meuna a dox ay si vous bu aller dem France en France bu vous dem aller fu ko vous ci àdduna dem fa mais tant que vous ngi au Sénégal il sera maintenu par les liens de la carcération de la détention du mën a dox ay ce qui est facilité. Hmm. tey Ousmane Sonko proposition boobu lañ ko la proposition de la facilité d'être exilé au Maroc quand mon nam ma au Maroc sëñ bi Maroc boo xamante ne jaar euh, laajul visa. Vous voyez si nga dem jënd billet présenté présenté wu euh, comment dirais euh, aéroport de Maroc ñibbisi mais quand je choisir d'être exilé au Maroc c'est quoi le luxe au Maroc au moins Karim il est à Doha. Mm-hmm. mais Maroc dit, Ousmane Sonko dina accepté d'être exilé au euh, Maroc. L'essentiel c'est s'en débarrasser. mais ils veulent se débarrasser de Ousmane Sonko c'est ça le mot le régime en place veut se débarrasser de Ousmane Sonko. ça dit que Ousmane Sonko mousse, je crois qu'il a de bons conseillers et aussi politiquement, il est, il est plus rusé que Nyumo Amal en face. Mm, mm, mm. Parce qu'ils ils veulent la, sa mort politique. Hein. Ils veulent sa mort politique. ça dit que toutefois Ousmane